عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق ñu ngi leen nuyu eh, di la sargal ci bés bu màgg bi di la ñaan nga jëkkalu yu bokk yi alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ñu ngi nuyu bokk yi di leen tatagal ci seen place ci seen dëkk ñu ko waxee woon ci bëccëg ci jumaa ji ne dëkk bi dëkk yi mboolem taalibe yi la ndax ki ko sanc yàlla rek a tax mu sanc ko ngir taalibe yi man fee daje ngir ñu man fee yaatu kon nag dëkki taalibe yi la dëkki mboolem soppe la bu ñu amee seen bés ñu tànn ko tey ngir daje fi te yàlla tax ak boroom dëkk bi di Cheikh Ibrahim radiallahu anhu kon danañ leen tatagal danañ leen yaatal danañ leen nuyu danañ leen ndokkeel tey ñaan yàlla yàlla mi ñu fi dajale mu jël suñu ziyaara bi nangul ko boppam defal ñu ci mbooleem yi nga xam ne moom lañ yaakaar ba tax ñu jóg te daje ziyaara bi lan moo ko waral ziyaara bi lu cosaanu la lu yàgg ci jamono Cheikh Ibrahim la ko mag ñi daje woon Alaaji Abdou Ñang sëriñ Ousmane Ndiaye sëriñ Aliou Cissé euh, sëriñ Mbaye Niass euh, ak mboolem kilifa yi tolloo woon ak ñoom Cheikh Omar Touré Omar Lo ñu daje gannaaw buñ sante yàlla ci li nga xam ne moom lañ gis ci baay ci taxawaayam ci diine ji ci jubleem ci jàngaleem ñu ne war nañu tànn bés di daje fii ci moom di ko ziyaare di ko nemmeeku ngir yàlla ndax di nemmeeku ngir yàlla nit ak yàlla lu rëy la ñu ne nag gannaaw ñoom xam nañ loolu dañu bëgg di def loolu dañ daan def seen dajewukaay ca gannaaw komba fu waay mën a jógee ci gannaaw Saalum ñu bokk dajee foofa ca gannaaw komba foofa la ñuy doxee ak seen tànk ba egsi Medina loolu yàgg na booba ñun ñi ay xale lañ yaakaar naa ne dana dellu ci quarante wala quarante et ba léegi ñu di ko def mag ñoo ña ko sosoon mag ñu baax ñoo ña ko sosoon ak ña ko fekkee woon ñi ci des bëri nañ sëriñ rafaal ci la bokk ba léegi mbir mooma dafa des di dox eh, ñu di ko def loolu mooy cosaanal ziyaara bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa daf ñoo wax ne yàlla wax na ci xadisul qudsi ne sama mbëggeel war na ci ñi nga xam ne dañuy bëggante ngir man di joxante ngir man di ziyaarewante ngir man ziyaare wante boobu diggante jullit bu nekk ak moroomam jullitam mbëggeelam yàlla war na ca rawatina nag boo xamee ne am nañ yaakaar ci nit kooku ne am na cër ci yàlla waaw bés ba ñu ko jëkk siyaara bis yi ajjuma woon ni bés bii wala mën nga koo takk naka jekk nag dañ daan tànn bés bi muy bési ajjuma ndax li tax ñu doon ko def noona dañu jàpp ne ajjuma mooy gën gi bés te itam wér na ne am na ci waxtu woo xam ne wi dañu wax ne mooy waxtu nangu ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne waxtoo ngi ci bési ajjuma boo xam ne ku ci ñaan yàlla yàlla nangul waxtu woowa nag boroom xam-xam yi wute nañ ci ñii nañ mooy waxtu mujj wi ndax moo tax Cheikh ma Tidiane radiyallahu anhu tëral si kër si àjjuma jullit ñi di ci toog di tudd yàlla ba ca saa su mujj ñu tëj ñaan yàlla am na ñu wax ne waxtu julli jumaa la ñu ne diggante fi ñaari xutba yi fi ilimaan di toogee ak fi muy jógee foofu la waaye fu ci mën a doon daa iman waxtu ngëneel yi ak yi ngëneel yi ak guddi ngëneel yi yàlla daf koy nëbb ngir jàmbi bi farlu ci boromam waaye nag ziyaara bi moom naka jekk ajjuma la daan doon ndax liñ jàpp ne ajjuma mooy gën ci bés te jëf boo xam ne yaa ngi koy jëf ngir yàlla da ngay tànn bés bi nga xam ne yaakaar nga ne mooy bën bi bés bi gën bu fekkoon dañuy seet bés bi dëppoog suñuy masla dañ koy def samedi wala dimanche nga xam ne mbooleem ndii liggéey danañ ko mën a teewe waaye nag dañuy tànn bés bi nga xam ne moom lañ wax ne moo gën ci bés bu ay bi muy bési ajjuma loolu moo tax ñu di ko def bési ajjuma ñun ñi nga xam ne ñi ñoo fi nekk gannaaw mag ñooñu itam jéemuñ ci soppi dara dañ ko bay ca cosaan lam nekkoon ba léegi moom alxaaj ibrahim la taas ci barkeem amiin eh, muxaddamam yu mag yooyu nga xam ne ñu ñëwoon tàggu ko dañu ko bëgg a mm-hmm. eh, lu mu ca teg lu mu jëflante woon ak ñoom eh, li muy jëflante woon ak moom moom jëflanteem yëpp ci digganteem ak jaami yàlla yi ci yàlla Euh, li mu jëflanteeg ñoom mooy euh, jàngal leen seen diine ba ñu xam ko yar leen ci yàlla yar seeni bakkan yar seen yaram tàggat leen ba ñu tàggatu ci yàlla jëriñu ci jëriñu ci seen borom jëflante ba ca gën a màgg loolu la ndax lépp loo xam ne lii dañ koy tabax te sukkandikuwut ci yàlla tabax googa du taxaw waaye nag boo xamee ne bi tabax ga dafa nekk ñeel yàlla mooy li nga xam ne li rot na ci waxi xadis makaana lillahi daama wattasal lépp loo xam ne dafa nekk ñeel yàlla dafay sax dafay jokk euh, loolu moo taxoon taalibe yooyu ko nose woon moom santu leen ko moom mu ngi nekkoon ci boroomam ci di jëflante ak boroomam di jëflante ak jaami yàlla yi ci kaw xam ne ñii ay jaami yàlla lañ yoo xam ne war na jëflanteeg yàlla ci ñoom loolu mooy naka mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne boroom xam-xam yi ci xeetam ñooy ñoo ñu ngi mel ni yonent yi banu Israayil maanaam ñooy juble ba mel ni yonent yi nga xam ne ñoom la yónni yàlla yónni woon ci banu Israël kon nag bu fekkee ni ki yàlla dogal la may ko xam-xam may ko leeri xam-xam dana am te du ànd ak leer loolu ñun ñëpp dañuy janoog moom nit ki dana am xam-xam te fekk xam-xamam àndut ak leer alquran wax nañu ko afaraayta man ittaxada ilaahu hawa wa adallahu allahu ala ilmi yàlla réeral ko ci kaw xam gannaaw réer dana am ci gannaaw xam ñu xam ne xam gu àndut ak leer mooy booba xam-xam waaye xam-xam waxtu wu ànd ak leer boroom dootul réer loolu moo tax nag bi nga xamee ne bii xam-xam bi yàlla jox bàyyi dafa dafay xam-xam bu ànd ak leer mu dafa xamal nit ñi di leen ci jubal euh, di leen tarbiya itam ñuy jariñu ci seen diggante ak seen borom di di xam seen borom xam-xam boo xam ne eh, beneen xam-xam nekkut ca gannaaw boo xamee ne bi yar na leen ñu xam seen boroom soobu jëriñu ci yàlla jëriñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa jëriñu ci Ahmad Tidiane loolu mooy liñ sàkku ci jàmm bu ko defee nag mu jub xam lépp lu muy def fam koy tëral loolu moo doon jëflanteem ak digganteem ak ñooñu nga xam ne bëggoon nañ ko fonkoon nañ ko te mbëggeel ga ak fonkeel ga yépp ñu ko tabaxoon ci yàlla aji abdullah mbir buy dox ci jamono bu mu yàggal lu bari dina ci ëlbateku hmm. ndax ni ñu doon jaare sëriñ bi noonu lañ koo defee benn tey waaw euh, li nga wax sax euh, lu am la ñu bari dana tuddoo sëriñ bi di wax ne doxalinam la ñuy doxal fekk ñoom ca seen bopp sax soppali nañ euh, amma ni ñuy ziyaare sëriñ bi ci fii ci Medina lim fi bàyyi woon ba léegi mooy li fi nekk wante nag boo demee ba génn Medina ci yeneen i barab yu bari danga fa fekk yeneen i oote yoo xam ne dañ koy wéer ci Medina wax ne euh, yari bàyyi la wala tarbiya bàyyi la fekk bàyyi bokkut ca loola dara loolu nag oote bu jóg daf cay am amoon na ci bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote lislaam wone ko mu leer nañ waaye yonent bi moo ñu njëkk a wax ne yahud yi fasantikoo nañ def nañ juróom-ñaar fukki kuréel ak benn yépp safara lañ nasaraan yi def nañ juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar yépp safara lañ jëm suma xeet danañ fasantikoo def juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett yépp safara lañ jëm lu dul benn ñu ne ko benn boobu mooy ban yow yonent mu ne mooy bi nga xam ne li ma nekkoon man mag suma saxaaba yi ci lañ nekk ñooñu rek mucc loolu nag bi Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu ñëwee am na am nañu woote nekk ci tarixam def ca loo xam ne moom santaane wu ko te cheikh itam xamoon na loolu ba tax na dafa wax ne dénk ci dénkaaneem bu ngeen déggee lu ñu leen wax ne man maa ko wax jël leen ko ngeen peese ko ci balaasu sharia lépp loo xam ne li dëppoon ak sharia nangoo ànd ak moom jël leen lu ca ut ak sharia jël leen sànni lu lu leen jot rek jógee ci man peese leen ko ci mandaxaay sharia lu ci dëppook sharia jël leen lu ci dëppoot ak sharia bàyyi leen kon xamoon na boobu ne ci yoonam danañ ci indi loo xam ne lii du dëppook sharia fekk jógewut ci moom waaye nag moom dal la koy dàq may nit ñi itam liberté bu day ni lépp luñ la wax ne Cheikh Tidiane la ko wax indil mandaxam sharia teg indil alxuraan indi sunna seet ndax lii mën nga koo sukkandiku ci alxuraan wala sunna bu fekkee gisoo ne mën nga ko ci sukkandiku rek dàqal waxal ne du waxi Cheikh Tidiane wala xataa ne na moom sax bu fekkee moo ko wax baal e, bàyyi itam foofu la tëral nee na moom ci yoon wi yonent bi jaaroon sallallahu alayhi rekk ci lay jaar waxtu boo xamee ne bii teggi na tànkam fi ko yonent bi teg la koy def bu bu bu yonent bi doxee mu dox bu toogee mu toog amul dara lu muy def lu dul daf ko wéer ci alxuraan ak ci sunna dundam lépp loolu la jàngale lim bind loolu la jàngale lim wax loolu la jàngale lim jëfe loolu la jàngale waaw Aji Abdallah lu xew ci jamono rek nit ñi sikkal ko mhm. euh, siyaaree am na ñoo xam ne ñi dinañu koy dingat mhm. waaw eh, ñuy dingat ziyaara dañu xamul li tax a jóg ziyaara ndax ci sama wax bu njëkk wax naa leen yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne ci xadisul qudsi ne suñu borom wax na ne wajabat mahabbati lil mutahabina fiya wal mutabadilina fiya wal mutazawirina fiya te loolu muy wax bu wér jógee ci yonent kooku nag kon naka la kon nit di mën a sikkan sikkalee am beneen xadis bu wax ne nit ku jóg di ziyaara ji nit te yàlla rek a tax waxtu wuñ dajee ba joxante loxo la leen yàlla di njëkk a ñoom ñaar mooy basenu wala mi bakkaar kon ziyaara boobu naka lay sikki amma lañ cay dajale ci seeni alal di ko yóbbu loolu kenn laaju leen ko képp koo xam ne kii gis nga ne teraanga la nga war a jël euh, sa addiya yóbbaale ko ci sa sëriñ jox ko ko loola def nga ko muy sa hadiya te eh, yonent bi sallallahu alayhi ba tey moo waxaat ne te tahaab day leen joxante hadiya bëggante nit ki waxtu wum te xaaj ci alalam jox la dana am lum def ci sa xol ci nit ak nit rek nit yàlla yi nag waxtu woo xamee ne bi jox nga leen seen alal alal jooju dañoo xam palaasam bu baax ñu defal la ko mu di la jëriñ e, jëriñ jaam yàlla Cheikh Ahmad moo daan wax ne e, sama natt ci seen bëggeel mooy dee leen ma jox seen alal doomu aadama ji fu mu joxe alalam rek xolama nga fa bu ko defee nag bu fekkee yéen a ngi joxe seen alal yi seen xol yi nekk ci man ma mën leen a jëf alal jooje jublu joon pour moom jëriñoo nit ku am waraaw la woon ku wattandiku la woon jëfandikoo loo xam ne lii wóor na ko ne daganut ci naka noonu xulafaa om yépp noonu lañ mel kon nag ziyaara euh, ku ko diingat diingat nga ngëneel loo xam ne lii sax na ci na sax na ci mboolem nit ñu baax euh, nett nañ ci solo ñu ne dafa am benn nit boo xam ne dafa jóg diggante dëkk dëkk di nemmeeku ji di ziare ji benn mbokkam yàlla yebal benn malaaka ne ko te loolu xadis la ne ko boo demee nga dogandi ko nga laaj mu jóg mu ne ko yow foo mu ne ko ci dëkk sàngam looy doxi mu ne ko diw lay seeti mu ne ko loo fay wuti mu ne ko dara mu ne ko ndax danga am ci moom alal joo bëgg mu joo bëgg a yar maanaam joo bëgg mu sax ci yow mu ne ko déedéet da ngeen jëflante mu ne ko déedéet da nga am jigéen joo bëgg a labat ci moom mu ne ko déedéet li nga xam ne mooy soxlaay addina yépp mu laaj ko ko mu ne ko déedéet mu ne ko kon lu la tax a jóg dem di ko seeti mu ne ko yàlla mu ne ko waaw kon nag maa ngi lay proposé la mu ne ko lan mu ne ko sa nemmeeku googu dama bëggoon nga jaay ma ko ma jox la junne dinaar nga wàññeeku mu ne ko soxla ko danaa dem mu teg ñaari junne mu ne ko soxlawut moog moom ba mu ne ko du ma ko jëndee àddina ak li ci biir yàlla ma tax a jóg te lépp loo xam ne di yàllaa tax ma di ko def du ma ko jëndee leneen mu ne ko maa ngi lay ndokkee man duma nit malaaka sama borom moo ma yebaloon ngir ma nattu la ndax euh, euh, lii ngay def jëmm ma tax wala taxut moom nag dara ump ko xam na ne jëmm ma tax wante na wax na ne yow ak ki nga jëm yépp mbëggeelam ak ak aljannaam war na ñeexal leen loolu jar na ziyaarante kon nag nit ku baax mënta weddi di jóg di nemmeekonte ngir nit yi àddina yi sax loolu la ñuy def ñépp ñi nga xam ne dañu bokk maslaa dañuy jóg jóg seetiwante ngir nose ak ngir maslaa yi àddina booba ñu bokk rawatina nag ñi nga xam ne yàlla mu màgg mi lañ bokk ñooñu kenn waru leen a gën a ànd kenn waru leen a gën a nose kenn warul leen a gën seetaan kon loolu loolu laa ci am pour tontu. moom a laaj Ibrahima su bis bi jotaan di bis bu màgg ci moom lu mu daan faral di gën di dénku bokk yi bokki taalibe yi euh, buy jo bu jotaan dana génn waxtaan ak taalibe yi ci yëf yi dana waxtaan ak ñoom ci seen diine dana waxtaan ak ñoom ci seen tariqa dana waxtaan ak ñoom ci seen diggante bokk dénk leen itam li nga xam ne lii moom la jamono ba laaj ca waxtu woo mu digal leen waxtu wu ne loolu la leen daan wax bu ñëwee dana leen digal ñu war a jàppee seen diine niñ war a jàppee seen tariq ñu war a jàppee seen ak bokk ñu war a jëflante ñoomu leen seen diggante dafa dafa ëpp xaaj fi mu nekk waxtu waagee xat si te defaguñu jataay bi hmm. waaye duñu la bàyyi nag ndax yaa ngi bàyyi ko bu yàggul ci daje bu mag hmm. ci Maroc hmm. xanaa nga mosol ñu tuuti rek bi daje mën a mu demee lu mu gàtt gàtt waaw daje boobu euh, buuri Maroc moo oote woon ci nadwa boo xam ne tariqa tijaan yi la ko jagleeloon tariqa tijaan yi ci àddina bi yépp fukki réew ak juróom benn daje nañ fa ba ñu dajee ñuy waxtaane mbiri tariqa bi ba ñu dajee bés ba ñuy ubbi congrès ba yàlla dogal na gannaaw bu ñu jàngee alxuraan suñu mbokk Oustaz Ibrahim Diop la ñu jox moo ubbi jotaay ba ci waxtaan waxtaan ya continué ba ci ci man man itam ma waxtaan waxtaan ya continue mboolem délégation yi ci réew mu ne ku ci ne fa nga jóge ngay joxe sa xelaat ci tariqa bi lépp dégguñ masa jam tariqa bi sekki nañ ko bi si keroog tuuma juñ ci masa teg te du dëgg keroog teggi nañ ko wax joo xam ne ji teg nañ ko tariqa bi alhamdulillah dindi nañ ko nam gën a gëree leeral nit ñi lan mooy tariqatu tijaniya la ca gën a am solo nag moo di mboolem délégation yi ñëwoon joge Sénégal joge Mauritanie jóge Mali jóge Niger jóge Nigeria ba Soudan al Khartoum euh, li ëppoon ci délégation bi yépp ay taalibay bàyyi amut nag benn nit boo xam ne bii ci sa discours ci ñooñu discours nga ko ba noppi te waxoo jeexiti bàyyi ci tariqatu tijaniya am na wax nañ ne dëgg la tariqa tijaan tasaaroo woon na lu lu ko jiitu wante nag li ci yàlla def ci loxoom def ko ci loxo benn nit ci lu ko njëkk tasaaroo na tasaaroo goo xam ne gi àddina yëpp nangu nañ ko benn naa taxaw na foofa wax na dëgg la ñu ngi wax ne euh, Mauritanie fa la tariqa tijaan génnee tasaaroo loolu kenn weddiwu wante nag tasaaroo gu yem la woon ndax ci li yeewoon dex gi rek la woon dawal yi ñoo nekkoon ay tijaan ci Cheikh Ibrahim te loolu naar a ko wax ci Cheikh Ibrahim ci la tariqa tijaan duggee ci gàddu gu nekk ci biir Mauritanie loola seede bu maandu la mu wax ko ndax dafay dëgg beneen waaye bu jógee sudaan wax na ca ne dëgg la tariqa tijaan ñëwoon na sudaan am na sax ci euh, rafu niqaab bi nga xam ne Sukkari jaa ko taalif am na ku ñuy wax Seyd Mahamadul Maahi boole na ko ci ñi nga xam ne dajewoon nañ ak Cheikh Ahmad Tidiane mu ne wante nag pour Soudan jëriñu ci tariqa Cheikh Ahmad Tidiane dëgg dëgg mu ngi am bi saaxibul fayda amee muy Cheikh Ibrahim boo ko waa Soudan ba loolu la sedde waa Nigéria ba jot wax ne ñun itam tariqa Cheikh Ahmad Tidiane ñëwoon na Nigéria jotoon na fa tasaaro benn benn jàppoon nañ ko wante nag lii nga xam ne lii moo ci am nit ñépp dugg ci tariqatu tijaniya ci jamono Cheikh Ibrahim la am <coughs> waa Niger ba wax lu mel noonu waa Mali ba wax lu mel noonu kon nag ñun ay seede rek lañu fawoon wax nañ li nga xam ne lii moo aju ci tariqa bi ak lan mooy tariqa Cheikh Ahmad Tidiane ak li ci liñ ko tabaxee liñ tabax tariqa bi mooy lan mooy gannaaw aoudu billahi min ashaytani irrajim jàng fatiha gannaaw jàng fatiha ci wérdo bi mooy astaghfirullah gannaaw astaghfirullah mooy julli ci yonent bi gannaaw julli ci yonent bi mooy la ilaha illallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu lenn lu ci ne ci yooyu alquran ko digg astaghfirullah ni ko alquran diglee ci biir alquran kenn xamul naka la day julli ci yonent bi nag bi ñu ko yàllay digal dafa tàmbalee ci boppam ne moom ak i malaaka ñoom ñu ngi julli ci yonent bi kon nag yéen ñi gëm dee leen julli ci yonent bi jaamu yàlla yépp am na waxtu am na dayal am na nu mën a yem ba mu des tudd yàlla tudd yàlla moom yàlla def ne uskurullaha zikran kasira tudd leen ko tudd gu bari kon nag Cheikh Tidiane nose tariqa boo xam ne mu ngi ko tabax ci yooyu mu def subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin yonent bi wax ne képp ku bëgg ñu di la nattal ci nattukaay yu mat yi li ngay tëjee say wax ak sa jaamu yàlla na nekk subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursalin kon kay tariqa bu mel nii nga jàpp ci sëriñ bu mel ni Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ci xam-xamam ci maadu nga xam ne xam-xamam la ubbee Fass Fass capitalu xam-xam la lu jiitu junne am ba léegi capitalu xam-xam mu dem fa jommal mboolem boroom xam-xam ya fa nekkoon ci xam-xam bañ nangul ko ñoom ñëpp demaguñ sax ci tariqa ak mbóot yi nga xam ne moom la yàlla def ci moom waaye xam-xamu sharia rek xam-xamu atte ci alxuraan ci hadis ci ahkam lépp ñu dem ba ñoom ñépp ña fa nekkoon nangul ko ne ko yaa ñor sëriñ bu mel noonu di sët ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam askanam wér nga man di lim maamam benn par benn ba sës ci yonent bi sallallahu alayhi muy benn ngëneel muy borom xam-xam muy beneen ngëneel yonent bi sallallahu alayhi wa ko boppam muy beneen ngëneel ah, jox ko wirdo bi nose ko nii mu nose yow dëgg-dëgg tarixa boobu ko am dara loo ciy wax rek dangaa xamul li ngay wax Cheikh Ahmad Tidiane moomu nag moo wax ne benn faylu dana ñëw ci samay saxaaba bu ko defee nag nit ñi dinañ dugg ci tariqa bi ay mboolooy mbooloo yu amut lim ba mu ko waxee ca jamono góor yu mag yi ñi fi feeñ yépp mbooloo yu bari dugg nañ ci seen loxo ci tariqatu Cheikh Ahmad wante nag ndax buñ nattee mbooloo yi ak mbooloo mi dugg ci loxo Cheikh Ibrahim dana méngoo loolu waxuñ ko nag pour wàññi xaqi kenn waxuñ ko pour leneen dañ ko wax ci buntëb wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis loolu rek la kon nag ñu xam ne faydu ba Cheikh Ahmad Tidiane doon dige feeñ na ci loxo Cheikh Ibrahim radiallahu anhu te a loola itam wax jooja feeñ na ca congrès ba ñeneen ay jàmbur ñu jógee ci yeneeni réew feeñal nañ ko ba leer nañ ni bëccëg te boobu ñun ñu ngi toog di xoole lii mooy li xew kon nag bokk na ci sant yàlla daje booba ñu daje yàlla def ca xéewal yooya mu ca def def ca ngëneel yu màgg yooya mu ca def ci tariqa bi ak ci faylu bi war nañ cee sant yàlla bégal ci mboole mbokk yi ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla wax na ne buy santee ñu dolli ñu Cheikh Ibrahim daana wax ne yow suma borom maa ngi lay sant ba nga gërëm te boo gërëmee maa ngi lay santaat jërëjëf Niass jërë yaa ci sa wax dana daal tarixa Cheikh Ahmad Tidiane na ci réew Mauritanie ndax loolu jiitu na euh, Cheikh El Hadj Omar euh, si mu jàpp ko waaw euh, bokk na ca waxtaan wa foofu suñu benn mbokk ci ñi demoon waxoon na gannaaw bu délégation Cheikh Omar Foutiyou bi waxtaane bi mu waxtaane ba noppi mooy ku ñu wax abdullah doomi seydil haadi di sët ci mawlud Fall bi mu waxtaanee ba pare wax ci Cheikh Umar ak silsila ci modul gaali waa kër Alaaji yi waxtaan wax seen silsila ci modul gaali mu jóg ñaan paro ne leen day dama defoon benn waxtaan bu gudd bu rëy ci sama maam mawlud Fall waaye nag gis naa ne sama maam dajale wuñu fi ah. li ñu fi dajale mooy Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu nag baax booba danaa ko teg wante nag ngir jubbanti yenn yenn rëq-rëq ci wax yi dama bëggoon ñi doon waxtaan ci Cheikh Omar radiallahu anhu ñu xam ne Cheikh Omar lu jiitu muy daje Mouhamadul Ghali ah, Abdou Karim bi ko jox wirdu yi Maolut Fall moo ko ko jox naka noonu Seydi Seydi Kara Xaaji Malik mu ngi jaar ci sama maam Maolut Fall wante nag li nga xam ne nii mu ne leen man sama maam ci sama baay mooy Maolut Fall sama maam ci sama ndey mooy Cheikh Mahamadul Xaafis moomu ñuy wax nga xam ne ci Cheikh Tidiane jële jëlee Cheikh Tidiane ne na nga dem te bul feeñal sa bopp fekk yàlla feeñal mu ne kooku mooy sama maam ci sama wàll e, wante nag sonat googu am nañ ko sonat mooy mu ne sonat yooyu nag biñ ko amee te yàlla def mëdët am mëdët mooy tëbb ñu ne ndax ñun dañuy doy doyloo suñu sonat yi wala dañuy dem ci mëdët bi ñu ne dëgg-dëgg dañu war a dem ci mëdët ba ñu bay fas sënët yooya ak te jàpp tarixa bi ci Cheikh Mahamadou Xaali Mahamadou Xaali ci saabay cheikh yi la bokk ci ñi jàpp ci cheikh direct la bokk Mawlud Fall moom Mouhamadul Xaafis ak ko ko jox kon nag ñu ne daal eh, am na ko dox diggante Cheikh El Hadj Omar Foutiyu ak eh, Cheikh Mamadou Xaali waaw wala ñaar ñooñu naka la ñu tudd kii Abdul Karim la tudd kii Mawlud Fall loolu lu wér la ñaas euh, waxtu bi dem na ñu bàyyi la te di la gërëmati. ñu ngi leen di gërëm ñu ngi feddaliwaat suñu nuyoo ci mboole mbokk yi di déglu ak di seetaan ñu ngi ñaan yàlla euh, yàlla defal ñu jàmm. ñu ngi gërëm mboole mbokk yi di gërëm itam suma rakk bi Cheikh Mouhamad Nazir euh, mi nga xam ne taxawaayam ci sama wel lu rafet la ci fii. mu ngi may dimbale ci li gën a am solo ci li ñu bay bayee mooy xam-xam ndax daara ji ñu samp eh, moom lañ ci jiital mu wutuñu ci te mu ngi ciy góorgóorlu eh, ko foofu néew na Banjul itam bëgg faa lu mel noonu mu ngi cay góorgóorlu eh, loolu nag te ci biir yooyu yépp nag terewul mu jubal ma njub loo xam ne fu ma neexul du fa yem fu ma neexul du fa fanaan loolu nag sant yàlla la maa ngi koy sant ci loolu ci mbooleem it sama rakk yi yàlla def na ñoom ñëpp fañ tegoon seen bàyyi fa lañ ma teg eh, loolu nag sant yàlla la ñaani seen bàyyi la sutura la ci kër gi maa ngi ñaan yàlla yàlla dimbale ma ba yaakaar yi am ci man ñoom ñëpp yàlla war leen ko ci man maa di yaakaar yi ak ci ñoom ci ñoom. alhamdulilah. Aji Nasir kilifa gi alhamdulilah ñun wax alhamdulilah rabbil nañu tey ci Cheikh Ahmad nañ ko. ci àjjuma ji si ci moom rek moo dellu rek alhamdulilah moom rek moo jóge fii ci senegal ci sëriñ dal di dem ba ci Cheikh kon nag alhaaji Abdoulaye mooma moo dellu si bàyyi xam ne alhaaji Abdoulaye ñëw na moo tey kon nag alhaaji Abdoulaye moo ñu mën a tëbb tey ci Cheikh Ahmad Tidiane tëbb ñu ci alhaaji Ibrahima Niass kon nag ñu sant yàlla ci loolu ñu ngi léegi di gërëm ñu nitam di la delloo di gërëmaane yow suñ mag alhaaji Abdoulaye Niass ñaan yal na la fi yàlla yàggalal yal na la fi yàlla saxal ba nga dolli ñu tëbb ci Baye dolli ñu tëbb ci Cheikh Matiane dolli ñu tëbb ci Alaaji Abdoulaye eh, ñi ngi sant sekk na itam di gërëm Seyd Mansour mi nga xam ne alhamdulilahi ba ko yàlla defee muy liggéey ci rajo Gàmbi ba léegi eh, daf ñuy sotti rek ci Baye ay géej ay duusi duusi yoo xam ne yi ba léegi ñu ngi koy tëbb eh, mu emut foofu mu dal di ñëw bëgg a ñoo tëbbati ci yow nga xam ne alhamdulilahi yaay bunti duusi eh, alaaji ibrahima ñes alhamdulilah bi nga xam ne ci yow la ba yow la ñuy tëbbee ci ñun ci ñëpp eh, ma mu ñëw nag tey ànd suñ sa xarit suñ xarit di suñ mbokk taalube di ibu bi tey mii eh, ànd ak itam ca mii nga xam ne eh, moom itam mooy tabax eh, ju jumaa jële ca ne ma funko nga xam ne Mouhamad Ndiaye ma Babacar Mouhamad Ndiaye moo ñu moo dimbale ca ki nga xam ne mooy président assemblée nationale ci Gambie ñu ànd ak itam ñu sàññan mi nga xam ne moom itam ca bijjulu moom rek moo fa doon di taalibe bàyyi ba léegi fi ne ñëpp nekk nañ di taalibe eh, ñu ànd ak itam suñu suñu xarit eh, sa sa taalibe sa taalibe bàyyi te bàyyam nga xam ko moo bàyyam moo sa bàyyi la woon mooy alaaji Maguette Seck mooy Moustapha Seck mii alhamdulilah moom itam di suñ président yi daayira lépp lu sa bàyyi wax ak loo wax ci loolu rek da ci la ñuy nekk loolu man maa ànd ak ñoom ci guddi gi E ànd ak itam ñu yónnee suñu doom e sa doom Mouhamadul Moustapha ñees moom itam nga dal di ñuy yaatal ubbil ñu buntab Baye ubbil ñu buntab Alaaji Abdoulaye Niass ba ubbil ñu buntab Cheikhu Tidiane tey ba ubb ba ubbil ñu buntab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te guddi gi kooku ñu ngi la ciy gërëm yow Alaaji Abdoulaye Niass yal na la fi yàlla yàggal yal na la yàlla fay yal nañu la yàgg siyaare yal nañu la yàgg siyaare yal nañu yàgg am sa ngërmaan yal nañu tëbb ci bàyyi maa ngi lay ñaan itam sama xarit yi ma tuddal la muy Mansour mi ak Ibou mi ak eh, Seck Moustapha Seck nga tëbbal ma leen ci sa bàyyi te warlul ma leen alhamdulilah warlul ñu ñëpp ñu fi nekk yëpp seen aajo faju seen maxaamu yokku alhamdulilah jërëjëf jërëjëf alhamdulilah rabbil alamin ma sha Allah barakallahu fik huwa al-qaid la jafa ala man tabassa wa ma ishayati فمن شاء انكر هو الفيض لا يابى على من تبصر وصار الدمير المالكين بأهلها تولى من لم يكرم بربها وتوبي ويابي بالمعارف لا ترى فقد كاثر الأقطاب أن بزاوية بفضل إله الناس جل جلاله وقم به رسول الله كان نبيا ما شاء الله علي شوي تقول له بالله حركه اللي يقبض وصول جميع الماسكين بحبليا تحققه من لم يكذب بربي يا رسول جميع الماسكين بحبليا تحققه من لم يكذب بربي وشوبي فاف في المعارف لم ترم فقد قصر الأقطاب عن درك شاوية بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله طال بي حلفت يمينا إنني لا يحبني سوى أسعد والعكس في حالي مضيا قد علم الأقوام وأني خادم فوصل حبيب الله ينفى بي وصلي وما قلت قولي شاطحا وإن خطوطي للأنام سعادة فلم يشقى يوما من رآني وخطيا وما قلت قولي شاطحا متبجيحا وما مسني سكر يغيب عقلي وما قلتها دون إذن وإنني لأكتم سرا لا يباح لغيري ولا كله من حب سيد مرسل عليه صلاة الله فلتلي شأنيه تنورت حتى تحيرت إنما جلال رسول الله حير فكري إفاضته منه إليه ما حبته سبحان رب لك روحي تجليا ومن سرها مت شوقا ومغراما أزيد اشتياقا حين زدت تدليا فما لي بوصل بالحبيب وليتني أجاوره في حالته تمنيا عليه صلاة الله ثم سلامه تساوي صلاة ذاكرين قبيليا عليهما الآل الكرام وصحبه ومن سلكون جل محبته قبلي قدر لا لا سيدنا محمد الفاتح te yàlla dimbale nañu. bëgg nag Maroc. bëgg nag Maroc. nga xam ne ka nekk ca bopp ba mooy saaxibul jalaala alxasan asaani. nga xam ne ka nekk ca bopp ba mooy saaxibul jalaala alxasan waxoon na ne dafa war lu mottali jumaa ji. waxoon na ne dafa war lu mottali jumaa ji. ñu ngi dox nag. mu ngi jox la nag. yàlla dogal na. li ëpp ci matériel bi koy mottali. li ëpp ci matériel bi koy mottali. tey teew na. tey teew na. barki dama nekk tay bi. barki démb ba. ñu wax ma ne ñetti trente taxaw nañ fii indi ay matériel. ñu wax ma ne ñetti trente tonnes taxaw nañ fii indi matériel. doon na ma jaaxal sax. mu ne dootu ko jaaxal dara. wàcce gi na muy demee. wàcce gi na muy demee. waaye wax nañ ma ne sama doom Xasan moo yéene ci jumaa ji. waaye wax nañ ko ne doom Xasan moo yéene ci jumaa ji. mooy Xasan Cissé. Xasan Cissé. moo yéene ci jumaa ji. moo yéene ci jumaa ji. oo dëkk bi. oo dëkk bi yëpp. ñu daje fi ak cawartaane gu mat sëkk. ñu daje fi ak cawartaane gu mat sëkk. wàcce. wàcce ko. te nam gën a rafetee. te nam gën a rafetee. loolu itam xeet la ci sant yàlla. loolu itam xeet la ci sant yàlla. ndax mënoon nañ cee yii. ndax mënoon nañ kon ñi fi teew. kon ñi fi teew. te jógee ca Maroc. jógee ca Maroc. wàcce gi jafe woon. bu wàcce gi jafe woon. dana nekk gerte. dana nekk gerte la. te kon itam. te kon itam. nañ ko fayee ca Dakar. nañ ko fayee ca Dakar. fay ko ca douane bi. fay ko ca douane bi. fay ko transit. fee ko galaas yi. fay ko ca magasinage yi. fee fee ko ca magasin yi. génne ko fii. génne ko ba mu dara desul lu may wàcce bii te bu bëggoon a jafe ñu fay ko. bu dara desul lu may wàcce bu bëggoon a jafe ñu fay ko. waaye nag kon jërë ngeen jëf. waaye nag ngeen ci taxawee ni ngeen ci war a taxawee. ngeen ci taxawee a taxawee. wàcce ko. wàcce ko. lu ci nekk ngeen teg ko ci place ba lu ngeen teg ko ci place mu des beneen ngërmaate itam. mu des beneen ngërmaate itam. am na suñuy doom yoo xam ne jóg nañ. am na suñuy doom yoo xam ne jóg nañ. ak suñuy rak. ak suñuy rak. taxaw ci basangi jumaa ji. taxaw ci basangi jumaa ji. ba la ca ëpp yëpp génne nañ. ba la ca ba la ca ëpp yëpp génne nañ ko. indi ko fii lal ko ci jumaa ji. indi ko fii lal ko ci jumaa ji. loolu it beneen xeet la ci liggéey ci liggéeyu jumaa ji. loolu it beneen xeet la ci liggéey ci liggéeyu jumaa ji. te Baye boole na ci lim dénkaane woon wax naa ko suñ mbokki naar yi bañ dajee ci jumaa ji. mu ne Baye boole na ci lim dénkaane woon suñu boppam yàlla nañ leen def ci jumaa ji. ne nañ def suñu yitte ci mottali jumaa ji. ne nañ def suñu yitte ci mottali jumaa ji. ba mu ko dénkaanee ba léegi nag. ba mu ko dénkaanee ba léegi nag. jamono sëriñ Aliou. jamono sëriñ Aliou. maag moom ñu ngi ca àndoon di ca def luñ mën. moom moom ñu ngi ca àndoon di def luñ mën. gannaaw bu ñu joxee gannaaw. gannaaw bu ñu joxee gannaaw. man ak samay rak. moom ak rakkam. doomi sëriñ Aliou yi. ak doomi sëriñ Aliou yi. ñu ngi ci sonn lañ ca mën. ñu ngi ci sonn lañ ca mën. kon nag loolu. kon loolu. yàlla beneen sant. dañ ciy ñaanal yàlla yu beneen sant. tey ñaan yàlla. tey ñaan yàlla. yàlla bu ci yàlla defam ndox. yàlla bu ci yàlla defam ndox yàlla. na àgg ca dañ ko bëggee. yàlla na àgg ca dañ ko bëggee. ñu sanc ko. ñu sanc ko. te nam gën a gaawee. te nam gën a gaawee. ndax bàyyi defoon na ci ay warlu. ndax bàyyi defoon na ci ay warlu. waxoon na ne. waxoon na ne. jumaa ji saa yu àggee. jumaa ji saa yu àggee. ñun ñëpp yàlla dana dimbale ñu ci suñ mboolem yi yàlla matal benn liggéey yàlla matal ko ko. kon nag yàlla nañu yàlla defal loolu. kon yàlla nañu yàlla defal loolu. soxla yëpp. soxla yëpp. yëpp. bu dee jiitu. mooy jumaa ji mat nañ ko bëggee. mooy jumaa ji mat nañ ko bëggee. yàlla ñu ko yàlla defal. yàlla ñu ko yàlla defal. suñ kanam. ci suñ kanam. ñu sanc ko. ñu sanc ko. ca nañ ko bëggee. ca nañ ko bëggee. ñu ngi gërëm mbooleem ñi ci yëngatu. ñu ngi gërëm mbooleem ñi ci yëngatu. nga xam ne yëngatu bi yëpp. nga xam ne yëngatu bi yëpp. luy jëmal jumaa ji kanam. luy jëmal jumaa ji kanam. luy jëmal sëy ji kanam. luy jëmal sëy ji kanam. loolu warugar la ci jullit bu ne. loolu warugar la ci jullit bu ne. rawatina nag koo xam ne. rawatina nag koo xam ne. mu ngi tuddoo pays bi. mu ngi tuddoo pays bi. ñu ngi dellu di dénk suñu bopp di dénk mboolem soppe yi. ñu ngi dellu di dénk suñu bopp. yëngu mboolem mbay yëngu. suñuy yëngu. nañ ko def mu ñeel yàlla. nañ ko def mu ñeel yàlla. bëri na yëngatu yoo xam ne yii. bëri na yëngatu yoo xam ne yii. ña koy yëngu. ña koy yëngu. seen bakkan ak seen bopp rek ak saytaane moo leen moo tax ñu di ko yëngu. seen bakkan ak seen bopp ak saytaane moo tax ñu ko yëngu. tey nag. tey nag. danañ ko tuddee bàyyi. danañ ko tuddee bàyyi. waaye bàyyi lu dañ ci yëngu bu jëmut ci yàlla bàyyi ku ca dañ la. waaye yëngu bu jëmut ci yàlla la. bàyyi ku ca dañ loolu waxoon naa ko maa koy waxaat. loolu waxoon na ko mu ngi koy waxaat. maa ngi koy fedd. mu ngi koy fedd. day wattandiku ñiy dox di naxe ci bàyyi. day wattandiku ñiy dox di naxe ci bàyyi. di sukural seen i bopp. di sukural seen i bopp. di sol ñetti kurus ak ñeent. di sol ñetti kurus ak ñeent. di am ay portale. di am ay portale. di tëgg di fecc. di tëgg di fecc. te wax ne loolu sa bàyyi. te wax ne loolu sa bàyyi. wallaahi ba loolu bàyyi du ca dara. mu ne wallaahi loolu bàyyi du ca dara. bàyyi li mu wane woon yoonam. bàyyi dafa wane woon yoonam. luñ xam. luñ xalaat la. mag ñam ca yaroon mag ñam ca yaroon ca loolu la ñuy ca loolu la ñuy yare ñi nga xam ne jot nañ dundam ñi nga loolu lañ xam ci moom loolu lañ xam ci moom yoon wu jub koj yoon wu nekk ca yar ca ay njabootam yar ca loolu nag loolu duñ dañ ko ko wax ku ci yàlla na ma jubal. ku ca yàlla na ma jubal. da nga tegu ca yoonu njub. da nga tegu ci yoonu njub. ñu ngi ñaan nag ñëpp yàlla jubal leen ñu tegu ca yoon woowu. ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yàlla jubal leen ñu tegu ca yoon woowu. ndax. ndax. seytaane dafa mën a naxaate dafa mën a fëkk. seytaane dafa mën a naxaate dafa mën a fëkk. am na jamono. am na jamono. dox naa ci dëkki taalibe yu bari. dox na ci dëkk Kaaba yu ci loolu yéen ci loolu bañ ca jógee ko bañ ca jógee ko wax nañ ma ca lu ne wax nañ ko ca lu ne nañ ma sax til tuddee nañ ma sax til ma sant yàlla mu sant yàlla ndax booy yëngutu ci yàlla te loruñ la ca ndax booy yëngutu ci yàlla te loruñ la ca loruñ la ca ci wax loruñ la ca ci jëf loruñ la ca ci wax loruñ la ca ci jëf kon xëy na yëngu booba yàlla daf ko nangu. kon kon xëy na yëngu booba yàlla daf ko nangu. wax nañ ma lu ne. mu ne wax nañ ma lu ne. xatta suma tukki mu wujj mi. mu ne xatta tukki mu wujj mi. wax nañ ma ci lu bëri. mu dem ak ma ci lu bëri. waaye nag alhamdulilah. waaye nag alhamdulilah. bi nga xamee ne natiija bi nit ñaa ngi ciy teg seen bët. bi nga xamee ne natiija bi nit ñaa ngi ciy teg seen bët. li ma doon dox nit ñaa ngi jaraw moom. li mu doon dox nit ñaa ngi jaraw moom. te dana gën a leer incha allah te dana gën a leer incha allah. man nag luñ ma ca mën a wax. mu dem loolu nag luñ ko ca mën a wax. bu ma ca amee ngërëmal yàlla. bu ca amee ngërëmal yàlla. am ca ngërëmal sama baay mi nga xam ne moo ma yar. di sama sëriñ. neex na. neexal na ko. bu yàlla gërëmee. bu yàlla gërëmee. sama wàjjur gërëm. suñu wàjjur gërëm. sama sëriñ gërëm. sëriñam gërëm. duñ mën a wax baal naa leen. mu ne duñ mën a wax baal naa leen ko. la li arab yi wax nag. li arab yi wax nag. ne alqaafilatu tasiiru wal kilaabu tanbax. la xaj yaa eh, xaj yaa ngi baw waaye nag terewul gawar gaa ngi dem. mu ne xaj yaa ngi baw waaye terewul gawar gaa ngi dem. gawar gawar gaa ngi dem. gawar gaa ngi dem. Eh, loolu mooy la xew. loolu mooy la xew. am na gaañu gaañu ci sama tukki mi. am na gaañu gaañu ci tukkee bi. yëg naa ñu bëri ñu ma ca ndokk. yëg ñu bëri ma ca ndokk. ma ne man te ñàkk. man te ñàkk. loolu daf daan am. loolu daf daan am. kon nag ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi. kon ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi. ñu daal leen ndokk ci métit wala leneen. ñu daal leen ndokk ci métit wala leneen. yooyu doy nañu royuwaay. yooyu doy nañu royuwaay. yonent bi gën ñëpp. yonent bi gën ñëpp. ci moom lañ fanaan. ci moom lañ fanaan. ñun bàyyi mi suñu roy téef. nekk wax nañ ko ko. lu nekk ko yu ne ndokk lañ ko ko. ndokk yu ne ndokk lañ ko ko. waaye faale ca loola daal. lii nag. lii nag. boo gisee ma wax ko. mu ne boo gisee ma wax ko. dafa am leen ni soppe yoo xam ne. dafa am leen ni yoo xam ne. métti na leen. métti na leen. ñu tey ci sama kanam wax ko. ñu tey ci kanam wax ko. defal naa leen. defal na leen. wax naa leen ne. wax na leen ne. bu leen faale loolu. bu leen faale loolu. te it nag. te it nag. dénk naa leen ne leen. dénk naa leen ne leen. bu leen ma indi la ci loolu bu leen ma indi la ci loolu képp ku ma wax lu baax képp ku ma wax lu baax bu ngeen indee loola bu ngeen indee loola danaa ca bég danaa ca bég ku wax safaan ku wax safaan wacc leen koog leen koog safaanam ndax ma doy ma doy kenn ci ñoom du janoog man wax benn baat wax loolu doy na ma loolu doy na ma te arab dafa wax ne arab dafa wax ne ki la jot li moo la xas ki la jot li kat moo la xas kenn xasu la lu may ki la jottali. kenn xasu la lu may ki la jottali loolu maa ngi koy wax nit ñi. mu ne loolu maa ngi koy wax nit ñi. kon nag. kon nag. nañ góorgóorlu ñu rafetal suñu ànd ci yàlla. nañ góorgóorlu ñu rafetal suñu ànd ci yàlla. ñuy dimbalante te yàlla tax. ñuy dimbalante te yàlla tax. man day feeg maa ngi dund. mu ne moom day feeg mu ngi dund. képp ku ma gis mu jàdd ci yoonu baay bi. képp ku mu gis mu jàdd ci yoonu baay bi. danaa ko wax. dana ko wax. te fasuma yéene wàcc yoon yi loolu maa ngi koy wax. loolu mu koy wax. di ko feddali. di ko feddali. te duma ci noppi. te ci doxam. yàlla ñu yàlla dimbale nag. yàlla ñu yàlla dimbale nag. bañ tegu ca yoon wa. bañ waree. nam waree. ak na ko bàyyi rëddee. ak na ko bàyyi rëddee. mbokk yi ñu ngi leen di ndokkee. mbokk yi ñu ngi leen di ndokkee. ñu ngi leen di ñaanal yàlla. ñu ngi leen di ñaanal yàlla. suñu ayib. suñu neer. yàlla ko yàlla nangu. yàlla ko yàlla nangu. yàlla yàlla seet jëm ci ñun. yàlla yàlla seet jëm ci ñun. bëtëm mbëggeelam. bëtëm mbëggeelam. bëtëm ngërmandeem. bëtëm ngërmandeem. bëtëm yërmandeem. bëtëm yërmandeem. yàlla wattu ñu ñun ñëpp. yàlla wattu ñu ñun ñëpp. te wattu ñu ci gëm yàlla. te wattu ñu ci gëm yàlla. wattu ci suñuy doom. wattu ci suñuy sët. wattu ci suñuy sët. ba yàlla. yàlla ñu yàlla takkale ak mbooloom di yàlla yàlla taxal ko suñuy jabar. suñuy jabar. yàlla nañ nekk ñu mën a jëmale ci diine. yàlla nañ nekk ñu mën a jëmale ci diine. suñuy doom. suñuy doom. nekk ñu mën a jëmale ci diine. yàlla nañ nekk ñu mën a jëmale ci diine. nekk ñu nañ ñu mën jëmale ci diine. yàlla ñu yàlla wattu. wattuñu ci gëm yàlla. wattuñu ci gëm yàlla. suñ nawet bii ñu nekk. suñ nawet bii ñu nekk. yàlla ñu ko yàlla àggaleel. yàlla ñu ko bëggee. te nañ ko bëggee. wala nu raw nañ ko bëggee. yàlla moo ko mën. yàlla ko mën. yàlla ñu ko defal. yàlla ñu ñun amuñ benn pexe. ñun amuñ ci mën a defar nawet. ci mën a waaye yàlla mën na koo defar. waaye yàlla mën na koo defar. yàlla ñu ko defal. yàlla ñu ko defal. may yu bari yu barke. may ñu ci mbooleef yu bari yu barke. te def ñu muuloo ko ci sant yàlla. ci sant yàlla. gan ñi ñëw. gan ñi ñëw. gan ñi ñëw. gan ñi nga xam ne ñëw nañ ci gàmm gi. gan ñi nga xam ne ñëw nañ ci gàmm gi. leen yàlla may delloo ak jàmm. yal leen yàlla may delloo jàmm. fekk jàmm. fekk jaaram seen njaboot yëpp ñu fekk leen ci jàmm seen njaboot yëpp ñu fekk leen ci jaaram yàlla boole ñu ak ñoom dimbale yàlla boole ñu moom dimbale may ñu barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may ñu barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may ñu barkeb baay may ñu barkeb baay ñaar yooyu buñ ko amee ñaar yooyu buñ ko amee alhamdulilah xéewal yaatu na dolleeku na alhamdulilah yaatu na dolleeku na ñu ngi gërëm nag mbooleem ku ñëw ñu ngi gërëm nag mbooleem ku ñëw koo xam ne ci biir réew mi nga jóge koo xam ne ci biir réew mi nga jógee. wala nga jógee ci bitti réew mi. wala nga jógee ñu ngi gërëm it suñ doom yi nga xam ne ñu ngi jàppalante ak ñun. ñu ngi gërëm ngi jàppalante ak ci fedd li ñi nga xam ne defoon nañ ko ci ci ci ci tant bi. gërëm li ñu defoon ci tant bi ñu ngi koy feddliwaat. li ñu bi ñu ngi gërëm ñi nga ñi ko taxawee. ñu ngi gërëm ñi ko taxawee. ndax liggéey bi liggéey bu rafet. ndax liggéey bi liggéey bu rafet la. suñu doom yi suñu jarbaat yi. suñu taxawu nañ ñu taxaw yu mat sëkk. taxawu nañ jar may jaar ci ay tur. mu ne gën a jaar ci tur yi. ñoom xam nañ. yéen xam ngeen. man it xam naa. leen xam na. gërëm naa leen te maa ngi di ñaanal. mu ne gërëm na leen te ñaanal. yàlla def leen mag. mu ne ñaanal yàlla yàlla def mag. def leen ay mag. def leen ay mag. def leen mag ñu barke. def leen mag ñu barke. def leen magi lislaam. bari def leen magi lislaam. def leen magi tariqa Cheikh Ahmad Tidiane. def leen magi tariqa Cheikh Ahmad Tidiane. yàlla yàlla def loolu. yàlla yàlla def loolu. ñuy ñaanal itam. ñu ngi ñaanal itam. mboolem daayira yeeg jamiya yi nga xam ne taxaw nañ jàppalante ñun ci xew yi. mboolem daayira yi ak jamiya yi nga xam ne taxaw nañ jàppalante ñun ci xew yi. ca gàmm gu mag muy ca gàmm gu mag muy ci gàmmuwaat muy ci gàmmuwaat ñu ngi gërëm itam ñu ngi gërëm itam mboolem service yi mboolem service yi muy Senelec muy Senelec muy Sones muy Sones wax dëgg yàlla muy wax dëgg yàlla xaw nañ taxawaay bu rafet taxaw nañ taxawaay bu rafet ñu ngi gërëm rajo Kaolack ñu ngi gërëm rajo Kaolack ndax Sones ndax su nekk ñun gis nañ ñun ñëpp gis nañ lu jiitu fani gàmm yi lu jiitu fani gàmm yi ni bi doon dogee ni courant ndax jëloon na sax suñ xalaat jëloon na sax suñ xalaat ñu ragal ñu ragal ne mën naa am loolu dal ñu ci ci guddi gàmm gi ne ñu ci guddi gàmm gi dalul ñu ci ci gàmm gi dalul dana nit yàlla la. loolu sant yàlla la. waa Sone si itam taxaw nañ ci ndox mi na mu waree. waa Sone nañ ubbi nañ ay robinet. ubbi nañ lépp loo xam ne lii ayib na fii ñu ngi cay taxaw di ko defar. lépp loo xam ne. ayib ngi koy defar. ciy taxaw di ko defar. ñu ngi taxaw di eh, dimbalante ci. gàmmu gi la. te jar na ko. te jar na ko. ndax ci yonent bi lañ koy def. ndax kon nag. kon nag. ñu ngi sant yàlla. ñu ngi sant yàlla. ñu ngi leen di gërëm. ñu ngi leen di ñu ngi gërëm mbooleem taalibe yi. ñu ngi gërëm mbooleem taalibe yi. ndax lii ngeen def. ndax lii ngeen def. mooy sagab ci. ci ci taalubeem. moo tax dafa béyoon ci taalubeem. béy bu nekk. béy bu nekk. dafay bëgg bu xewlee. dafa bëgg bu xewlee. gis ak njabootam. gis ak njabootam. gis nañ leen. gis nañ leen. yal na leen yàlla gis. yal na leen yàlla gis. yal na leen yàlla defal barke. yal na leen yàlla defal barke. yal na leen yàlla defal barke. yal na leen yàlla defal barke. yal na leen yàlla defal barke. yal na leen yàlla defal barke. yal na ngeen delloo ànd ak wépp yi. yal na ngeen delloo ànd ak wépp yi. ànd ak ngërëmal yàlla. ànd ak ngërëmal yàlla. ànd ak ngërëmal yonent bi sallallahu dara ci biir gàmmo gi ci biir gàmmo bi biñ nekkee ci biir waxtaan bi biñ nekkee ci biir waxtaan bi loolu délégation Moustapha Cissé ñëw na délégation bu Moustapha Cissé ñëw na délégation bu Moustapha Cissé ñëw na nañ ko daan defee nañ ko daan defee mbooloo ñu koy gërëm ñu koy ñaanal la ilaha illallah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 حي لا لا حي لا لا ay la la ay la la ay la la حيل الآن لا حيل الآن لا حيل الآن حيل الآن حيل الآن حي لا لا لا حي لا لا حي لا لا حي لا لا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 إلا لا لا لا إلا لا لا إلا إلا لا إلا لا إلا الله